doom ya gën a jàmbaare nga jox leen illeer ya gën a ñaw foofu la sëñ Tuubaa di jar ak ñun ñii gën a jàmbaar ci ci ci waaram wi wallaay lazim bu at yi ñëwee ñoom la koy jox bu alal ju bari dee ñëw ñoom loxo bu fit di ñëw ñoom la koy jox bu bu bu lu ne gàñ ci àdduna di ñëw ñoom la koy parce que xam ne bu leen ko joxee ñu ñu ñu dimbale ci taalibe yi kon nag loola sa waay rawee jarto jeex fenn jarta laaji sëriñ xoolaatal sa jëm ji jëf na ci sëñ Tuubaa loo ba mu koy jëf yaa ngi toog ñu woote ci tool bi nga ne nga nga nga ca kaw lal bay whatsapp wala di facebook wala nga lali meesa gaa ñi ne fii ci naaj bu tàng bi boo la génn lu ñu la rawee wóor na sëñ Tuubaa bu ko jàmbat kenn mbiri sëñ Tuubaa ñëw ndax waxoon na ko nee woon na taalibe yi bu leen ma sikk sikk leen lawbe bi man ni lawbe bi yatte rek laa duyee kon nag kenn ku ci ne it la sa morom di la ci ci waar wi bu ko mettit lu bu ko jooytul sëriñ sëriñ bi mag bee ko def te na ca mel noonu la takk ci moom waxoon na ni nag ku ma jox sa ndaw ma téye la sa mag loolu sëñ Tuubaa wax muy leer nañ la دنيا بأخرى يا فتى يا فتى loolu am kon nag comme dañ cee toll dooni ndaw lañ leen jaay suñu bopp lépp rek jox ko la moom ni ma koy waxee saa su nekk nag te bañ cee séentu dara dara dara man nag moom li ma koy wax rek dafa am xisa boo xam ne xëy na day doog a génn ndax sëñ bi lim bind bari na waaye xisa yi mu def bari na at wu nekk nag lu bees ñëw fan wu yàggul rek muy xisa naar woowu nga xam da kaa dimbaloon ca ndox ba ndox ba ca gànnaar nga xam xisa bu wees sàq la man moom man sam bopp ci laa koy gis man ndax dañoo wax ni naar bi daa fekk sëñ bi mu mu fa mu fa mu nekkoon ci ci ci ci Mauritanie doon wuti ndox bi mu dee ba jib barab ba barab ba bëri woon jaxasoo lool diggante góor ak jigéen naar ba dand barab ba ne sëñ bi dand barab ba ne naar bi gis ko xam ni sëñ bi ndox la bëgg ci barab bi waaye ni barab bi mel moo méngoowul a jën moom moo tax yeggu fa naar ba dem ca moom ne ko sëñ bi xanaa ndox nga bëgg mënu ko waaw mu jël la sëñ ba doon wut dem wutal ko ndox ñëw jox ko sëñ bi ne ko xàqasaa daa di dem bi loolu di am di loolu di ba jamono jot sëñ bi dellu fii ci njaareem naar bi ñëw Sénégal di commerce kenn ku ci ne xam ne ni njaareem ca ay jamono moo dooroon Carrefour naar yi ndax moo gënoon dox ci luy dox ci commerce demee ba loolu jot naar bi ñëw fa di def commerce am dégg sëñ bu mag bi ci riir bi ci njaareem mu ni kooku de kon sama waaja la xaaral ma dem seet ko def fa ay diir munu kaa munu kaa kaa gis mu bañ a tokki ba bis muy xaar-xaar ba ngoon jot sëñ bi ubbi raj rajo gi bëri lool mu feeñal jëm ci feeñal jëm sëñ bi gis mu mujjee addu ne kooku du saa waay ja ne man de Michael sañ bi ne ko sëñ bi ne ko ndax dégg naa fu mu ko mos a wax ci jotaay ñëpp déglu sëñ bi ne ko loolu jaruma biral ndax de amul lenn lu ma la ca war a fay xalaa xamoon ne bis ba nga ma ndox bis boobu la ñu dijjati sa sa sa say pàq safara yóbbu ko àjjana ngir jëf jooju nga man ci laay gisam bopp man. wér na. barke. na góor a. man na baax na baax na. waaw jërëjëf mbaa muy kàddu yu am solo di yoo xam ne jëwriñ yi wàcce nañ ko fi ak ñenn ñi nga xam ne ñi ñoo fi ñoo fi teewal euh, euh, daayira yu ne muy jëwriñ Assane Baye Fall. jëwriñ Bamba Ñang ak jëwriñ Maam Cerno ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew muy sant goo xam ne sant gu wér la quoi ñëpp daal ñu ngi sant cant gi daal loolu la wér ñëpp a sant cant gu ñëpp yi def nag vraiment bu kenn waxee mën naa waxaaleel ñëpp mooy sant daal ñu ngi sant di soññ ñëpp na ku nekk ñëw du lenn kenn lépp ñëpp la sëñ Bamba du lenn kenn ku ci seetaan sabab comme ni ko Bamba waxee rek moom sëñ Bamba seetaan la ci ay mbiram na ku nekk daal jàpp rek xam ne sa mbir la mbir mi tàmbali a ñoo ko ca ñu ngi sant ñëpp comme ni ko Baye Fall di ñu bay ñu xiin tuuti réew Bamba ko moom Assane gi kër la tey gi kër Bamba ko moom Bamba ko moom kër gi Bamba mooy kii ko moom jërëjëfe borom maa ngi maa ngi jégal bu wér maa ngi lay dog sëñ Assane maa ngi jégal bu wér asalaamaaleykum ci képp ku mën a mbokk mbokk julli mbokk taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu wér waaw ñu ngi leen di siyaar di siyaar mboolem mbokk mu fi nekk rek waaw cant ak ngërëm gi moom ñeel na leen ñëpp waaw di commencé sunu Baye Diop ma nga xam ne moo toog ci kër gi nga xam ne boobu ba tey suba ba tey maanaam ñun ñëpp ku fi nekk ñun ñu ñëpp tey ji waajur la ci yow waaw ndax sunu morom waajur la waaw di ko ñaanal sunu borom may ko gudd fan ak wér gi yaram ak sëñ Bamba mi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoo liggéey bi ak jëwriñ sëñ Yanko ak ñëpp rek waaye man moom kër sëñ Tuubaa yi li ci gars yi wax doon na sëkk li may soññee maanaam xaj na am na ñu nekk fii xam xaj na am na ñu fa nekkul fépp foo xam ni maanaam taalibi moo fa nekk li may soññee moo xam Morone moo xam capital moo xam caution fu mu mën di doon nañ leen di dellu dem ci daayira Sëriñ Tuubaa yi ndax liggéey bi pour mu gën a gën a gaaw pour mu gën a taxaw ak beneen liggéey boo xam ne mën nañ koo songu ci dëkk bi kenn ku ne fu daayira Sëriñ Tuubaa ne ci yow taalibe yi fa daje maanaam bu mu mën di doon rek daayira Sëriñ Tuubaa la demal nga bindu ci bokk ci bokk ci ñoori ñoori liggéey ba day tox ko ëllëg maanaam lépp loo xam ne song nañ ko maanaam day gën a yomb ci ñëpp ah. waaw loolu moom maa ciy dollu bu wér waaw di siyaar sëñ Assane Baye Fall ak ñëpp kàddu yi moom dama koy gàttal léegi nag kër sëñ Tuubaa gi moom liñ ci war a wax moom gars yi wax nañ ko ba pare waaw cant ak ngërëm ñeel na ñëpp yàlla nañ ko àggale ci sago waaw dem ba koy sant ak ay xasida fii ñoon Baye Cheikh ak gars yi di daaj yaa ngi may déglu ñu koy bëggee maa ngi jégalu bu wér nag jërëjëf waaw vraiment ñu ñu amaat beneen ka beneen jëriñ joo xam ne nii moom mooy l'infatigable muy sëñ Bamba Jonn koo xam ni vraiment kenn doon ko présenté muy jàmbaar dëgg ci yoon wi di suñu coordonnateur ci administration bi waa ñuy fàttaliwaale tamit ne chaque 15 jours dañ fiy daje di di biral mbégum sëñ Tuubaa fii loolu la jëriñ wax léegi ne ma ma ma biral ko nit ñu dégg ko mooy chaque 15 jours daal ñu ngi fiy daje fii war a euh, di cant di saytu liggéey bi ndax nit ñi mën fay daje ci loolu ñu jox kàddu gi sëñ Bamba joonu mu am kàddu yu mu ciy leeral xam naa moom vraiment xol bee sedd. salaamaaleykum salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di ziarewaat bu baax a baax di leen màggal. di tuub tey jégalu bu baax a baax di jiital ci ziar bi sëñ Mountakha Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér Mbacke Balla yàlla na gën a yàgg gën a wér sëñ Cheikh Jëmb Fall ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax mu gën a yàgg gën a wér ak njabootu sëriñ Touba gi yëpp di ziar jëwriñ yi nga xamante ni ñoo nekk ci fédération bi yëpp ci njiital sëñ Yankoba ak sëñ Bamba ak mbooloo mi nga xamante ni ñoo topp lépp ci ginnaaw jëwriñ yi dañoo am mbégte moo xamante ni wóor na sëñ Touba maanaam xamu xamuñu sax nun koy waxee ndax depuis euh, weeru safar gi ba léegi wóor na sëñ Touba mbégte rek la ñuy ci suñ bopp ba lii nga xamante ni mooy li nga xamante ni war na sëñ Tuubaa taarix la ci yoonu murit mooy kër sëñ Tuubaa Argentine ñan ñoo ko taxawal murit ya fa nekk war na sëñ Tuubaa loolu ku mu doyul dara doyatu la war na sëñ Tuubaa am na mbégte moo xamante ni am na fu mu yem am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem kon ñun ñëpp nañ leen gën a góorgóorlu ci li nga xamante ni mooy liggéey sëñ Tuubaa bi te xam ni mënuñoo def lu gën a kawe ci kaw suuf lu ëpp liggéey sëñ Tuubaa mm-hmm. liggéey sëñ Tuubaa nag sëñ bi moom dañ koy liggéeyal di ko jaamoo yàlla di jaamu yàlla di ko liggéeyale sëñ bi kon nañ leen ci gën a góorgóorlu bu baax baax ñun ñi nga xamante ni ñoo yor wàllu administration bi ñu de wóor na sëñ pare nan lépp loo xamante ni lu jëm ci kayit la lu jëm ci wàllu kër sëñ gi noppi nan ngir dox ci li nga xamante ni moom moo ci war ndax lii ngeen gis ni xëy na këyit yi bari woon na bari waay boo xamante ni luñ ci waroon a dox yàlla def na ba lépp sotti ci ndimbalal sëñ bi kon nag wóor na sëñ Tuubaa lépp loo xamante ni lu jëm ci wàllu lu jëm ci wàllu liggéey kër sëñ Tuubaa ñun moom amuñu ci sago mhm. amuñu ci sago wóor na sëñ Tuubaa amuñu ci benn sago boo xamante ni moom mën na mën na noo wax ni ci la ñuy doxee liñ ciy doxee lépp duñ ci ànd ak sago barke Seexul Xadim ndax dañoo ñun dañoo yëg maanaam li nga xamante moom lañ sëñ Tuubaa di defal ci liggéey bi am nañ ci mbégte lool barke sëñ Tuubaa dañuy yëg ni ñun kat dañuy yokk barke sëñ Tuubaa ci liggéey sëñ Tuubaa bi mhm. kon nag képp koo xamante ni taalibe nga nga nekk ci biir dëkk bi ñu ngi lay soññaat ci liggéey sëñ Tuubaa bi am lu gën a kawe ci kaw suuf lu dul liggéey sëñ bi mhm. kon nañ leen ci jàppaat bu baax a baax a baax la ci ab taalibe nag nga nekk fii biir Argentine ñu ni liggéey nañ fa kër sëñ Tuubaa te sa dërëm mosu faa dem wala sa ñaq mosutee dem loolu moom nañ leen ko moytu bu baax a baax kon fépp fu waay nekk rek mhm. wóor na sëñ Tuubaa bis bi nga xamante ni moom la ñuy woote muy chaque quinze jours ñu woote daje fii ngir liggéeyal sëñ Tuubaa na ñëpp bàyyi yitte yëpp ñëw teew ci bërëb bi ngir lan ñu ànd liggéey boobu ñu ngi tuub nag bu baax a baax a baax tey jéggalu di ñaan yàlla nañ yàlla defal tawfeex ak tey sir barke Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaw comme ni ko waxoon rek kon ñu delloo kàddu gi Baye Fall ñu barkeelu dégg naa léegi bu bees la ñu gi kër Bamba moom waaw gi kër moom kër gi Bamba moom gi kër Bamba ko moom kër gi Bamba mooy kii ko moom gi kër Bamba ko moom kër gi Bamba mooy kii ko moom gi kër Bamba ko moom murid xanaa añaguleen kër gi Bamba mooy kii ko moom